audu bi kalimatillahi tammaati min charri ma xalaq bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alladi jaalana xayra ummatin oxrijat linnaas wasalaatu wasalaam ala nabiyi alhuda warrahma sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahu bi ihsanin ila yawmi ddin bismillahi rahmani rahim barke cheikhul xadim jërëjëf Serigne Touba ski Serigne tubaa ci Serigne Touba borom tubaa moromantewul bokki jullit yi nuy déglu bokki taalibe yi bokki Sénégal yëpp noo ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah kenn ku ci nekk fa nga toog di nu seetaan wala nga di déglu noongi lay baalu àq ngir jëmmi Serigne Touba soo ko amee lee baal nañ la ko ci xol bu sedd ngir jëmmi Serigne Touba di. ànd ak yéen it nag di tàllal loxo yàlla di ko ñaan mu dugal nu ci njëggalam gi te jéggal nun ñëpp di ko santit ci xéewal yu bari yim nu defal te saa su nekk seytaane bëgg a dox suñ digg sant ba bëgg a fàtte xéewal yi te yàlla wax ci alquran ni li ma leen defal ci ay xéewal yéen bindee fii su ngeen ko doon wàññi di ko lim di ko compter mu leen a xam nu mu toll xéewal yooyu nag li muy bari bari bari ba xamuñu nu mu toll ak lim ñu ci defee lépp nun ñi sukk jébbalu Sëriñ tubaa ñëpp kenn ku ci nekk man ngaa am firnde ju leer ci ni mboolem loo am ci xéwal lu mu bari bari ak lu mu neex neex neex boole gi la yàlla booleeg Sëriñ tubaa dara melu melunu ci xéwal kon noo ngi sant yàlla ci xéwalam yëpp te di ko gën a sant na xéwal gi mu booleeg Sëriñ Tuubaa noo ngi ci sant yàlla bu wér di ñaan yàlla ndax moo ko wax ci alxuraan ba tey ni ñaan leen ma ma may leen woo woo leen ma mu wuyu leen noo ngi ñaan lépp luy dox digganteeg ñaan gu nangu ñaan gu bañ a nangu lépp lu koy gàllankoor yàlla na ko suñ borom falang te nangul nu ñaan gi mu yàggal fi Cheikh Sidil Muxtaar taw féexal ko ba li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba ci biir lislaam mu liggéeyal ko ko nu ànd koog moom ak jullit yépp waaye nag nu daje cee ngërëmul Serigne Touba ginnaaw loolu bokk yi ñaari ajjuma yi jàll yépp xam ngeen ni am na lu nu tàmbali woon muy loo xam ni dafa yitteel yoonu murid yépp yitteel lislaam bépp yitteel senegal gi yépp ciw doxalin waaye li ñuy jëkk a def bala noo sori ci jégalu gi mooy émission bi xam ngeen ni daawul tàmbali ci waxtu wii dafa yéex a tàmbali tey loolu nag moog télévision ak rajo ñoo ànd dafa am loo xam ne ci wàllu technique bi bu amee léeg-léeg waxtu wa ngeen doon tàmbali ak man nu di ko tàmbaleendoo mbir dina xew ba ñu mën caa teg lu xaw a takku ñu soog a tàmbali loolu moo am tey kon noo ngi leen di jégalu ci yéex gi mu yéex a tàmbali waaye léppit nag ci liggéey bi rek la dafa ànd ak liggéeyu télévision ak rajo moo demee noonu kon noo ngi leen di jéglu baax a baax waaye li ci am solo rek mooy bu yeexee it ñëw na rek te dinan ko def bu soob yàlla ci kàttanu yàlla loolu moo ci am solo noo ngi leen di jéglu ci néggandiku ak yi euh, xaarandi gi di sant ñi fi jaaroon te jiitu fi baax a baax rawatina sëriñ Abdou Khadir Jiri Samb ci liggéey bi euh, yàlla na ko yàlla féexal moo bokk yépp ànd ak sëriñ assan Fall ci wàllu xarala gi ak sëriñ Lamine Ndiaye ak Serigne Madieng Xëri Dieng si ci wàllu caméra bi ak sa Sadikh bokk yi kon li nu tàmbali woon ajuma ji waroon koo jeexal dañ ciy dellu siwaat ndax niñ ko xawoon a yàkkamtee keroog lépp rek yéene ji ak bëgg rek bokk yi jariñu ci moo taxoon mooy li ñu doon wax mooy le mouridisme face au défi politique du futur maanaam yoonu murit dafa am ay mbër yu ko dëkk yu bari wu ci nekk rek bëgg koo daan te yoonu murit moom ba ilaa yow mi diin du amub jël loolu amul benn werante waxuma ko ci aal waxuma ko ci fanatisme waxuma déedéet dama du daanu mukk moom kay saa su nekk mooy daan am nag mbëri yu ko ñëw dëkk danañ bëri nag bëri bi moom du mën a ñàkk waaye ñoom it dañuy daanu rek nag rek ala kulli xaal kon loolu mooy yoonu murit euh, ci wàllu baatu politique ci doxalin euh, li ko dëkk ci wàllu politique lan la foofu nag leeral naa ko ay yoon xanaa rek tënkaat ko ci lu gaaw a gaaw mooy waxoon naa ni politique bokk na ci li gën ci àdduna politique ndax sayidul qawmi xaadimuhum yent bi nee na ki gën ci nit ñi moo ki di liggéeyal ki di servir Sëriñ Tuubaa am na fu mu ci junjee lu bari nu nag politique nag ay nit ñoo xam ne du ñu ay sénégalais di boroomi xam-xam dëkk ci yeneen réew ñoo gis aw doxalin ñu wutal ko aw tur arab yi wutal ko aw tur muy siyaasa ñeneen ñu wutal ko aw tur muy politique nag jot na nag ñu ko tur tur wi ñu ko war a wutal nag sax mooy alxidma ndax dem nañ ba léeg-léeg dinañ gis loo xam ni dañ koy jox politique moomale ko ko tuddale ko ko te bu politique amoon avocat dina leen porte plainte yóbbu leen tribunal ña koy def ndax politique mooy lépp loo xam ni nit a ngi ci jóg di ko dox mooy doxalin wu baax yorin bu baax saytu bu baax ngir am réew jëm kanam ak ña ca dëkk nekk ci jàmm ak salaam di mën a jaamu yàlla loolu mooy politique tasiyiru umuru dawla les affaires de la cité maanaam nag loolu du ku nekk ko war man bañ nañ ko ba di laar laar maanaam dangay waane ku wa da war a waane bala ngaa politique mooy waane mooy li ngay def na ko man lool waxuñu nag li nga xam noonu ngeen xam Sénégal ay élection ak i wote ak i parti ak i xëccoo ak yi ñaayo déedéet nee na leen loolu neneen la tudd mais li ngeen bëgg a dégg daal xam ko buñ ko bëggee bokk jàng ko ñëpp te ñi intellectuel yaa ngi may déglu politique moom jotewul ak yan yii xew ci Sénégal ni muy xewee jotewul ak loolu dara kon politique moom noonu léegi jot na nag ñu wutal koo tur te tur wi am na mooy lan mooy alxidma alxidma te sëriñ bi li mu tudd ci baatu xidma noonu mën nañ cee doon nekkoon ni sëriñ bi wutal nañu lépp bi ñee tuddee lépp politique mooy lan mooy ci wàllu wér yaram ñi ko yor niñ koy doxale ci wàllu mbay politique agricole xidma ziraaiya al xidma sehiya maanaam wàllu wér-gi-yaram politique sanitaire politique économique loolu yëpp xidma iqtisaadiya xidma siraaya xidma sexiya yi yëpp ay yëf la yoo xam ni ku ca nekk ku ne yaa ngi politique na nga cay politique nag mën naa baax man naa bon waaye politique moom lu baax rek ko war a mën a tax a jóg kon loolu na ko ñëpp jàpp tey baat bi nga xam ni dem nañ ba am nañu complexe dañoo dem ba léegi euh, dafa nekk loo xam ni irhab la da di terroriser Sénégal yi dem nañ ba baatu politique da leen di terroriser léegi am na ñoo xam ni dem nañ ba maanaam am nañ complexe sax nga ni diw day politique ndax lan ndax melokaan wi ko ñenn ñi melal tax na ñu ragal ko ragal ba gën ko ragal gaynde te politique moom jotewul ak ñooñu dara ñay def loolu jotewul ak ñoom dara kon loolu laa bëggoon wax ni mooy yoonu murit nag am na ay mbër yu ko dëkk ci leen fas yéene ñëw te loolu waxoon naa leen ko article bi Serigne Cheikh Gaynde Fatma mu Cheikh Mouhamadou Moussa Bachir bindoon te jëmmi jamono muy li ma tudd léegi wax leen ko muy mbëri yi dëkk yoonu murit ci wàllu politique ci li ñu jëm ci kanam ñu fas yéene tàmbali bi jëkk mooy waxoon nañ ko ci tàmbali bi ni bu ñu dëggee tàmbalee ndigal euh, ndigal du luy faatu bi ilaa yow mi diin ndax ndigal bu dee rek l'islam dee waaw ndigal bu faatoo rek islam faatu ndax lislaam mi ngi tege ci jëfal bàyyil day digle di tere kon ndigal moom bu ñu demoon ba mu ne amatul rek ne leen les lislaam faatu na lislaam nag faatoo dafa bàyyi taaw mooy yoonu murit ndax da koo taawloo kon loolu waxoon nañ ci duñ ci dellusiwaat mooy lan mooy ñu bëgg a xam ni euh, jëmmi li nga xam ne mooy ndigal bu fekkente bi dal doon ci ginnaaw ñi fi nekkoon di kilifa bi ci mujj am ci wàllu lu jëm ci mbirum wote waxuma politique wote laa wax ndax wote bokkut ak politique dara ay élection jotiwul ak politique bi dara élection waxtu law yi def campagne la wote génn ca dem bokkul nag ak bu loola jàllee politique ba nit ñiy def mooy lan nañuy doxale réew ma nañ koy saytoo ci wàllu wér yaram ci wàllu mbay ci wàllu sàmm ci wàllu napp ci wàllu lépp ci wàllu njàng loolu yooyu doxalin yépp nag boo ko boolee waxoon naa leen moom lañ tuddee politique mooy science mooy xidma kon sëriñ bi nag murit yi jàpp tey ni noonu léegi nañ ko tuddee al xidma su ko defee sax baat bi nit ñi mën koo ñeme bu ko ci duggati ñu ne ah diw de mi ngi ci xidma bi léegi waaw nañ ko jàppe léegi diw mi ngi ci xidma bi ndax jotewul ak li nga xam moom la ñenn ñi def dara kon li ma wax foofu mooy eh, ki fi mujj wax ni maam sëriñ Cheikh Mbacke waxee ñaar fukki at ak ñeent ci ginnaaw lañ mujj a dégg ñu joxe ndigal ci wàllu wote waaye kilifa yi joxe ndigal ci wàllu wote di xalif général bu demoon ba koy joxe da koy def ci intérêt général maanaam du boppam du doomam du jarbaatam du benn du kennam jëmmi intérêt général bu Sénégal ak l'islam ak réew mi moo tax bu di ko dox ndax day gis ne loola rek mooy njariñ mu war a wax ca loola amma nag bu beneen ndigal jógee bu bokkul ndigalul xalif général kooku ndigal périphérique la mooy ndigal ordinaire la ka ko joxe maanaam moom la engagé moom rek la engagé waaye engagé wul yoonu murit wépp li mën a engagé yoonu murit mooy ndigalul xalif général di murit benn baat boo xam ni bu ko waxee te li ma leen waxoon ca jamono ñi jamono yu ñu bind nu le ndigal et nous damaa waxoon ni képp kuy xalif général saa yu joxee ndigal intérêt général moo tax mu joxe ko beneen ndigal nag bu jóg boo xam ni bokkul ak ndigalu xalif général ci wàll yu bare bari am na ci yoo xam ni mën nga koo jàppe intérêt personnel maanaam loo xam ni nit ki boppam la wala moom la yitteel wala moom la ci moom la yem kon loolu nañ ko bàyyi xel kon ndigal moom mun a faatu mukk ginnaaw loolu itam ñi nga xam ne ñoo doon jéem a faat ndigal rey ko mu dee Euh, ñoom seen bopp su leen arranger ñu ne ndigal de am na su leen arrangé wul ñu ne ndigal amul waxoon naa leen ko ñi fi tooñoon yoon wi am ci ñoo xam ne wax nañ lu ñu war a wax ba taalibe yi bëgg leen duma fudd seen ndigal ba sëñ bi joxee ndigal di toog leen bàyyi leen leen ñooñu dañoo gis ne ah ndigal kat am na dañoo gis ndigal mu am njariñ lool kon ndigal dafa am foo xam foo nekkee am mën nañ koo nangu am foo xam foo ñun ndigal amatul li daal mooy ndigal moom musu fee jóg te fi jóg ndax ndigal bu faatu woon lislaam faatu loolu mooy li am solo ginnaaw loolu nag li ma leen wax léegi ci mbirum politik leeral naa ko yaakaar naa ni lu ci nit gàtt-gàtt xel war naa mën a xam kon politique mooy lan waaye leneen li ñuy def nag jotewul ak politique dara eh, ginnaaw loolu itam ñu dellu si ci li Cheikh Abdoul Ahad waxoon ni wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi bu leen dégg yàlla mukk di wax ci alkuraan naan yonent bu ma yónni bu ne ci sa làmmiñu ñama la yónni laa la yónni maanaam ku mu yónni ku yàlla nee na wa maa arsalna min rasulin illaa bi lisaani ku ma yónni ku maa ngi lay yónni ci kallaama ak ñama la yónni la ñuy làkk ca ca kàllaama ko laa la yónni sieb laat nag nee bu leen dégg yàlla di ko wax mukk ba ngeen jàpp ni ci bi yonent dong la yem ndax yonent moom sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yem ginnaawam yonent yonent dootu ñëwaat mun leen nag bu leen dégg bu leen defee nag kon nee na mursal nee na li fekk addunay tukki mursal du fi jóg suñu blaat moo tekkee noonu aaya bi nee na mursal mooy koo xam ne saa yu toogee di wax ñu toog di la déglu xamal ne mursal nga dañ laay yónni ca ña ngay waxal yàllante woon nga xam ko nag ba di leen wax lu leen di jariñ ci àdduna ak alaxira loolu waxoon naa ko ndax nee naa leen murit buy jébbalu bu ne da nga naan jébbal naa la sama bopp adduna ak loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàyyi ko kon adduna si sa sëriñ wala ki la yilif nga topp ci moom war na lay mën a giide war na lay mën a tett ci àdduna naan la nii la ak nee la ak defal lii ak bàyyi lii kon ndigal du fi jóg kon loolu nu dellu ci waat ginnaaw loolu itam euh, li nga xamante ni bii moo ci topp ci wàllu wow mooy défi yi nag mbër yi dëkk yoon murit bi ci dëkk mooy lan mooy alwaxda unité nekk benn mbër la moo xam ni ñàkk nekk benn dafa ñëw dëkk yoonu murit waaye day daanu ni muy daanoo mooy Sëriñ Tuubaa da ñaanoon yàlla te yàlla lu ko Sëriñ Tuubaa ñaan may na ko ba noppi yaa rabbi ijaalil muridina ma an fii xisnikal xasini wa chamlaj ma muy bayit bi sëñ Saliou mujj a wax bi mu fi daataan jóge yàlla defal murid yëpp ñu bokk benn nekk mel ni mburoog soow léeg-léeg nag am lu mel ni lu xew loo xam day nuru ni bennoo amul te benn musta jóg day nekk benn toujours loola mooy lan loola mooy la Cheikh Maam Cheikh Rafal waxoon ni yoon wii sëriñ bi ñag na ko ba ba kenn mënu cee yàq dara li ci amagus néew kay ñu koy xaw a xebat wala lu ci yàq dara ak tuuti as néew di ko xaw a gàkkal ci biir lay jóge loolu mën nañ cee jàng benn mbir kenn koo xam nekk nga ci yoon wi tuddoo murit wala nga di murit yor comportement boo xam ne bokkul ak la Sëriñ Tuubaa doon jàngale ak mag ñi mu àndaloon bu boobaa yaa ngi gàkkal nga génn ci biti nag ànd ñeneen di dox loo xamante ni bi jotul yoonu murit dara su ko defee ñeneen ñi daal di xool leen murit rek waaye ñi daal dañuy font rek xool leen ci mbedd bi xool nangam nga xam ne loola yow yaa génn ci yoonu murit di def loo xam ni yow yaa may buntu ñooña loolu maam Cheikh Rafal nee na li koy li ci sëb la li koy bënn ngi ci biir beneen bi ci topp ma jox ci benn misaal bu bees boo xam ni soo nekkee Touba wala nga dëkk ci biir senegal sa jur di murit yaakaar si Serigne towaa topp leen am nga am sa waajur wu jigéen ñu yar la ci yoonu murit nga judd ci ñu ngénte la ci nàmpal la ci dugal la ci alxuraan jàngal la ci xam-xam majaalis ak lépp nga jàng ci ba ni ar yàlla def dimbali la nga dem ba bitim réew jàng ci réew yi naar yi ba dellu siwaat soo dellu see ci biir réew yi ci yoon ñu nga bokk kenn wérantiwul loolu sa maam ak sa maamat sax ci lañ bokk waxatuma ak yow ci lañ la defalee lépp néegub góor ci lañ la ko dugale ci lañ la tuddee ci lañ la rayalem xar lépp nga wëlbati ko nag ñëw génn ci biir yoon nag indi yeneen xalaat yu bees daal di commencé contre ak a dingat ak lu ne nga dugg ci bu boobaa ci yoon wi nga bokkoon waaye la maam Cheikh Fall waxoon mi nga am kon yow ñi la xam xam nañ yow mi ci yoon wi nga bokk wala bokk say wajur lépp ci lañ bokk nga wëlbatuloo génn ñëw dem ba ñëw nag di indi say pexe yoo xam ne ak say jëf yoo xamante ne bii koo gis daal di xool leen nangam ak su ko defee nag nga indi ci biir yoon wi ay ñenn ñi naan fii la bokk ak fii la bokk ak gëmul gëmuñu tarixa ak gëmul yooyu yëpp nag yow mi bokk ci yoon wi def lool mais du tax nga réussir ko ndax suñ tubaab xool na ne mbir men du ko def kon waxda bi bennoo bi li koy waral mooy nekk ci ba ginnaaw xalif général di mu di jëfe ndigalam di bàyyi tereem ñun ñëpp li ci indi nag nee naa la du du deñ mukk benn mooy am saa nekk bu leen tiit waaye nag li ci am mooy léeg-léeg bu fekkee ne kenn jóg na tey joxe ndigal périphérique ndigal loo xam ne intérêt boppam moo tax waaye mu engagé ci yoon nag ci ndigal la déedéet kooku moom la engagé engagé wul yoonu murit waaye bu boobaa itam danañ am na ñoo xam ni seen ñàkk yeewu ak seen ñàkk analyse day xoola murit yi ñii da jaar nañ ñi ñee jaar ne kii di wax ne lee kee wax lee déedéet kooku ngay wax ka wax loola joxe benn exemple bu gàtt sax tey jii rek ndax li jëm muy ay législatif ndaxte dafay exemple bu ma jàng barki dem ci journal gis naa ko yor benn mouvement tudde ko Macky moo ñu ñor man sëñ Tuubaa moo ñor sëñ Tuubaa ku mu ñor forcément Sénégal dina la ñor ku Sénégal ñor jullit ñi dañ la ñor lépp dañ la ñor ku sëñ Tuubaa ñor rek Sénégal ñor la jullit ñi ñor la ñëpp ñor la ma gis mu bind ci journal wax ci communiqué bu muy bëgg a def am ndaje wane ni dinaa dem ci Cheikh Sidil Muxtaar wax ko ni ko Abdoulaye Wade bu mu bokk ci élection yi législative yi nangam nangam yow ci ban mantu nga koy waxee sëñ bi yow kay boo amee looy wax demal ci Ablaye Wade wax ko moom léegi dèjà yaa ngi dugal sëñ Sidi Mokhtar ci loo xam ne kenn dugg ko ci egseeguñ ci safar yaa ngi engagé Cheikh Sidi Mokhtar dèjà ci processus boo xam ni kenn tudd ko ci manga nga toog fa mu toog di gérer la mu war a gérer di ko yore na ko war a yore yow boo amee looy wax ka cay bëgg a moom demal ba ca moom nga ne ko ah nga conseillé ko nga waxtaan ak moom loolu maa ko lire ci journal kon lu mel noonu dafa war a doo am droit nan boo ko boo ko waree def sax bu la neexee nga jaar ci suuf ndànk de wax ko moom bokk waaye lu tax ngay toog ci journal Macky moo ñor mouvement nga yore moo la ñor moo la ñor waaye nag bul ni dinaa dem man ak sa mouvement bi wala man sama bopp dem ca sëñ Sidi Muxtaar wax ko ni wana wax Abdoulaye Wade ni ko bu mu dugg ci élection yi waaw sëñ Sidi Muxtaar loo ko moom kooku bàyyi ñëpp la moo yilif ñëpp bul ko engagé ci loo xamante ne bii waxaguñ sax jëm ci kenn ngaa ko jëkk a ci processus boo xam ne eggaguñ ci waaw c'est pas te loolu murid nag dañ ko bàyyi lu mel noonu nag bu amee su ko defee yow am na beneen murid boo xam ni xam na ni lii nga wax jaaduwul tegewul ci yoon su ko defee nag boom bu boobaa loolu nga wax fee mu wax fee ñu daan ni murid yi kii jaar na fi kii jaar na fi voilà unité boobu nag loolu moo koy yàq du ko yàq sax waaye loolu mooy wane ni kon kooka jàdd na yoon yow daal boo amee looy wax sëñ bi jëru nga di ko wax ci journal demal ba fa moom te boo amee fitu wax ko dara itam kan ku bëgg a booleel wala nga waxtaan ak moom di ko xelal sax demal ba ca kooka kay nga ne ko bul ci dugg bul bokk bu fekkee am nga mantu ba waaye Cheikh Sidi Mourtada demaguñ ci campagne waxtu yu jotagul nga naan dinaa dem ci moom ni kon diw sàngam bu mbokk ci élection yi nangam nangam ndax nangam ak nangam bul ko ci dugal kooku dafa ñëpp la yilif waaw muy ñi far fii ak ñi faru ñi far ak ñëpp la boole kon bul ko engagé ci loo xam ne wala nga wala boo ko waxee bu dee sax lu baax rek nga jublu nga jaar ko en quatre minutes ci suuf dem wax ak moom bokk waaye loo ci la la duufal ab loolu entre parenthèse la day wane kon bennoo gi nga xam ne mooy am ndax tey bu ma gis am na ñoo xam kenn ku ko dégg ko da ah lu tax muy wax lii te ay murit lañ ñëw kon loolu lu war a bàyyi xel la bennoo gi nag li ma leen ci wax léegi dara du ci deñ sëriñ bi ñaan na ko ba noppi waaye li ci ëpp solo mooy ki ci mën a dimbali xalif général di murit mooy murit yëpp ki ko jegeek ki ko soreek ki mu jox responsabilité ñëpp kenn ku ci nekk nga fexe ba yem ca la nga xam ni moom la lay defloo te bañ caa laawale leneen ndax kom ginaar waxaale sa soxla su ko defee beneen murit day jóge fële boo xam day xam ni sëñ bi wax lii yow yaa ko bëgg a waxee noonu ci ak cant nga jaar wax ci sa soxla wala nga jàppale ca nit wala nangam su ko defee benn mu day révolté waxin la daal daal di fippu ni sëñ bi waxul loolu ndax nit ñi xam nañ bu sëñ xañ sëñ bi xam nañ lu mu wax ak lu mu kon boo toogee ci ak cant wala wala màggal wala dara am loo xam ne waxal nga ko tu jaarale ko tuur sëñ bi mur yi dofuñu nag boo boobaa dañuy xam ne kon yow benn googu nga xam ne moom la ñu war a soxla yow yaa ngi koy dindi ndax kee day weddi kee weddi kee weddi ki nangu ki lànk kee nangu ko defee nag kon loolu moom sëñ bi dañ koy bàyyi fee léegi nag n'empêche que yow boo amee sa xam-xam wala nga am sa expérience wala nga ànd ak nit am nga ci droit yooyu yëpp génnal nag génn ak say argument taxaw wax ci turu en tant que citoyen en tant que démocrate am nga droit nga dem yëngu ci wàllu politique nga dem wax waaye argumentel nag teg ko ci xam-xam waaw na nga doon ay boo yorul ay diplôme it xamal xam-xam bu wér boo xam ne kenn du ko mën a dindi teg ko ci yar ak teggin itam waaye nag bëgg a làmboo mbalaanum sëñ bi loola moom bu boobaa loolo mooy indi ñàkk benn googu moo koy indi ndax day gis koo xam da nga lee sëñ bi wax ko xalaatu ko am na loo xam sax yaa koy xalaatal wax ko ko wala mu wax la ko nga soppee neneen bu boobaa kon loolu day yàq benn googu kon loolu mooy mbër mi nga xam ne mooy euh, xajjaloo dafa dëkk yoon wi waaye yoon wi dana ko daan ba dax dana ko daq ba dax ko te ilaa yow mi diin lu ci am mukk ndax sëñ Tuubaa ñaan ko waaw kon loolu dañ ci bàyyi waaye daal a dimbali sëñ bi daal sëñ bi moom na ko jekk baatam kenn du ko wedd waaye li ma xub ni mooy ñi ko wër ñëpp ak bu ma nee ñi ko wër mooy képp ku di taalibe ak foo mën a nekk rek waaw ak kuñ jox responsabilité fexeel ba booy wax lu ne bul ca xool sa intérêt wala bul ca jéem la jàppale diw ca wet ga wala nangam kat déedéet nga xam mooy intérêt bi yoonu murit d'une manière générale waxee noonu ak la wax loo boo ko deful nag boobaa bennoo boobu mu unité boobu mbër mbër moom nga xam ne mbërum xaajaloo la ñëw dëkk yoonu murit day daal di am foo xam ne dafay prox ndoll waaye nag du réussir ndax lu mel nii dañ koy daal xam maa ngi nii tàmbali di ko wax kon loolu leer na ba koo gis da nga xam ne ah waxoon na ko kat diw sàngam ne nangam beneen bi topp mooy bon gouvernance la bon gouvernance ci yoonu murit ni ko sëñ Cheikh bindee woon mooy euh, yorin wu rafet loolu itam xalif général ku ne xam na aw xalif général bu fi mën a nekk bu ne ci yorin wu rafet rek yorin wu rafet rek ngay yor li ci am solo kay mooy sëñ bi moom lu nekk baatam la ci am ak ndigalam woo nit wala kuréel ni leen defloo naa leen lii bon gouvernance nag mooy lépp jaar ci yoon tege ci yoon liggéey ki liggéey bu sell yow muñ ko dénk nag yaa war a am ngor ak jom joo xam ni di nga ko rafetal nu raw njartul sëriñ bi ba noppi di ko liggéey naa ko nii muy liggéey bu ñu la man liggéey loo bu ne ndax nee naa sëriñ bi moom bon gouvernance ci moom lay tàmbale ci moom lay yem waaye nag bu la wooyee ba doy loo la jox la mbir muy jumaa wala muy kër wala muy leneen lu mu mën a doon ak it kuréel gu nekk ci biir yoonu murit di yëngu mbooloo topp la ñu dajale ba jox la ko fexeel ba loola nga def ko bonne gouvernance yor ko yoren wu rafet wu sel wu yiw woo xamante ni bi kenn du ci am loo ci la bat loolu itam bokk na ci mbër yi nga xam ni dëkk na yoon yoonu murit maanaam su fekkee ni nit ñi dañoo jóg rek ku ne yor dara yilif dara di ca doxal te lañ cay doxal doxalu duñ ko nañ ko war a doxale loolu mbër la moo xam dañ ko war a daan fi suuf dax ko ba dax daxee ko kon ñaari mbër googu wax naa ko muy mbiru nekk gi benn waaw xajjalo gi mbër la mu dëkk yoon wi wax naa ni li koy daan wax naa ko li ci topp mooy bonne gouvernance du ci sori lu ku ku sëñ bi woo dénk la dara di la ko liggéeyloo rafetal ko sellal ko teg ko ci yoon bu ca dara lëndëm transparence lépp na ci am bu fekkee ni yow itam yaa jugal sa bopp ba xalaat ko nit ñi ànd ci ak yow juboo ci ak yow topp ci di leen jox sa xaalis xaalis boobu tam ak na mu war a demee fexeel ba lépp na tege ci bonne gouvernance loolu tam dana tax mbir mi gën a jëm kanam bu baax a baax beneen ba topp mooy solidarité bokk na ci li nga xam ne mbër la mu dëkk yoonu murit ci ni ma ko mën a waxee waaye mbër mi moom dafa ñàkk jom rek waaye liñ ko daan bari na lool waaw moom solidarité xanaa kay dañ ko war a soññi waat ni ko nag booy ñëw bi yoon bu ñu la daanee dootu fi jaar loolu nag nanga ko xool ci ni ma ko waxin la li ma bëgg wax foofu mooy ku ne xam na ni solidarité li ñu ci war a def mooy zakat yàlla da koo digle muy bokk ci ponk l'islam yi waaye kuy joxe addiye ba ñoo joxe joxe zakat li des kay mooy maanaam zakat yi nga xam ne taalibe yëpp am nañ ku dem booroom mën a joxe aska ñu seet nag nu ñu koy joxee léegi di ko saytu organiser ko teg ko ci yoon ba nga xam ni yàlla wér na yàlla bu ñu ko defoon kenn dootu gis ku ñàkk fi mu toll nii murid yi ñi ci am mën a joxe seen asaka bu fekkoon ne at mu nekk génne ko teg ko fañ ko war teg ñu ñu koy saytu bu boobaa problème yépp day jeex loolu nag mooy mbër moo xam ne war nañ koo daan ni koy daane mooy fexe nag ba am courage nag jóg taxaw samp loo xam ne mooy taxawal asaka yooyu nga xam ne moom la ñuy joxe muy jóge ci ñiy bay ak sàmm ak ñiy napp ak yor sale rek ñëpp ku ci am xaalis boo xam ne war naa génn asaka bu génnatee ñu ne léegi nañ ko dugal ci banque bi dénk nañ ko kuréel sàngam sëñ bi jox na ko nàngam nañ ko saytu bu boobaa lu ñu ci war a def ñu def ko ci loolu it mbër la moo xam ni mu ñu war a daan la dëkk na yor murit muy organisation boobu kuy joxe addiye waxi noppi solidarité nag ci yoonu murit ni ma la wax ni fa la mooy tey sëñ Cheikh wax na ko ci article bi boo demee ci Sénégal kër sër yi bari na fi lool kër tey jullit bu jàq bu ne te néew doole boo feebaree yóbbu ko kër sër ñoom de mën nañoo faj ñu leen laaj cherul waaw loolu dëgg la xëy na du du wujje waaye ku ne xam na ni waxoon naa ne ko diggante ñi fi nekk gëm beneen diine ak jullit ñi benn lañu ñu ci wet mooy amuñu benn jafe-jafe waaye nag suñ mënee am jom ñoom gën fee tuuti gën a néew ab lim ba noppi ñoom ñu gën a néew ñu gën a néew ab lim ñoom ñooñu muy chrétien te saa yu jullit ñu jógee suñu bëggee ordonnance bu yomb wala garab gu yomb wala faj bu baax fa ñu daw kër sër loolu mooy lan kon mbër moomu dëkk na yoon ni mu ko dëkkee mooy ginnaaw ñooñu ñoo man loolu nit kuy def lu baax waras na ko caa a roy te loolu sax amu ci roy ndax l'islam moom moo moo moo moo màggale loolu ku ne xam na loolu muy solidarité kon solidarité boobu dafa war nañ ñu war a organiser waat ba nga xam ni lu tax am kër soxna jaar du am kër soxna may ni ma ko waxoon keroog kër soxna moom mi ci biir région Sénégal yépp nag ba nga xam ni tey jii ku foroti xale boo xam ne day taxawaalu wala ñu war koo sànni ñu mën koo yóbbu foofa denc ko fa loolu mas naa ko wax Sorano ba ñuy def Bamba mos xam ñaar fukki at ci ginnaaw dem naa ba sant naa yàlla ndax idée boobu taxaw na léegi mooy bi ñu jëkk am ci pépinière islamique ci Sénégal guleet Touba la am sëñ Fallou Ndiaye ba ala ba sëñ Ndiaye gene moo ko yor fi ñu tollu bat ñaari téeméeri xale nga ci première pépinière islamique am na nee naa la woon luy am rek day tàmbale ci yoon wi mu kenn musu ko gis pépinière islamique boo xam ne ku nar a sànni doomam wala keneen fi ñu toll tëj ña mat nañ ñaar téeméer ña nga ca Touba am na beneen boo xam ni mi ngi fii ci Parcelles Assainies daaray Serigne Saliou la tudd daaray Serigne Saliou boobu nekk fii ci Parcelles Assainies am na léegi boo xam ni lu ma juróom juróom fukki xale nga fa ak juróom yoo xam ni fukki bébé ak benn ña nga ci muy ñaari pépinière kon guléet kon loolu léegi loolu bu yaatoo nag ci biir réew mi yëpp moo gën nag ñuy jur di am doomi jullit ba noppi di ko yokke weneen di ko yokke ñeneen doomi jullit yooyu ka dañ ko bàyyi ak kuréel jullit moo tax nag kër soxna jaar yi war a juddu mais kër soxna jaar yi yemul ci loolu rek mën naa ay kër soxna jaar yoo xam ni dañ fay faj nit ah daara soxna jaara wala hôpitalu soxna jaara maternité soxna jaara nangam nangam yooyu yëpp ñu def ko waaye li daal mooy am na guléet mi ngi soo ko am am na léegi première pépinière islamique ca Touba wax naa ko ba ma koy wax Sorano boobu ñaar fukki at am na ñu ko seetaanoon keroog ba ñuy joué Bamba mos xam ak maag sëñ Moustapha Mbacke Gaynde Fatma moo tax bu ma xalaatee ba dara sotti rek damay sant yàlla tey ji am na beneen boo xam mi ngi Parcelles Assainies boo xamante ni bi as soxna moo ko yor foofu tuddee ko daari sëñ Saliou ñu di fa jël xam ni dañ leen sànni rek loolu ko benn la kon solidarité woon na fa solidarité mënut a weesu li Cheikh Sidi Mokhtar defoon ci ci ci inondation yi weesu un milliard mu génne ko joxe ko te un milliard yi bu ko dugaloon biir itam ni ko waxee kenn du wax dara ndax Touba soxla woo nañ ko woon nañ ko na ñëpp inondé woon lañ mu jël ko def ko ci réew mi yëpp loolu mënut a weesu solidarité sëñ Saliou Mbacke bi fi Sonacos lakkee nu mu defoon téeméeri million mënut a weesu solidarité ah tey jii solidarité yooyu yëpp ñu ngi ko jàngee ci sëriñ bi ndax ma tàmbalee ci sëriñ bi ba mu yónnee franc CFA ba mu yónnee woon France ngir xam ne bu ñu dévaluer franc français ñëpp ciy loru sëriñ bi dugal xaalis boobee maam Cheikh maam Thierno Ibrahim quantité ba nga xam moom lañ doon lekk nourriture bu maam maam Thierno Ibrahim moo ko defoon moom itam joxe ko muy wàllam ci ña demoon guerre mondiale loolu itam solidarité kon naka njëkk am na li am kay mooy léegi noonu war na noo laaj ku ñëwoon nii waa kër Sëñ Tuubaa yi njaboot gii taalibe yi noonu war na noo yedd ndax liñ am ci xaalis liñ am ci xel liñ am ci jàng liñ am ci ngëm liñ am ci jom liñ am ci yëpp ak ci nit bu ñëwee wax dëgg yàlla nit war naa mën ñëw ni ñii ñii est-ce que liggéeyal nañ Sëñ Tuubaa parce que suñu force yi amul xajul ci Afrique waxuma Sénégal waaye xajul ci sous région bii li nu yàlla may xajul sous région bi lan moo des mooy organiser ko teg ko ci yoon loolu moo des waaye fee kii fii ka déedéet loolu mënut a jàllale dara kon mbër mi nu mooy mbarum solidarité bi na ànd rek organisation muy asaka ja ak addiya ak yëpp ba nga xam ne leen lu nekk day jaar ci yoon nit ñi mën koo jëriñoo l' ensemble de l'humanité nag laa wax waxuma yoon bu ñu nee yoon murid rek mooy képp koo xam ni yow jëm nga ci yàlla suñu borom te jaar sayyidina sallallahu alayhi wa sallam ku ca jaaragul ñu ñaanal nga jaar ci ni ma ko ko waxoon ci yaa malikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jami al a yaa hadi rida ginnaaw loolu mooy def na beneen defi défi boobu mooy euh, éducation euh, éducation euh, mooy beneen mbir mi nga xam ni dëkk na yooru murid maanaam ñàkk a jàng gi xale yi ñàkk a jàng ku ne xam na ni yoon wi am na ñu jàng lool macha allah amul masala mooy laajte duñ la tontu amul bu fekkee ni wàllu adduna la ku ñu la gën a ay ay cadre supérieur fi nekk ci biir réew dafa tasaaru nag ci biir réew fu nekk ci service yi yëpp waaye nag li war a jàng nag dëgg ñu war a leen a ñaax dëgg dëgg dëgg ak bañ dox seen digganteeg jàng foofu laa ni mbër moomu moo ñëw nag dëkk yoonu murit ngir bañ la gi njàng mi ni war a amee mu amee noonu loolu itam muy loo xam ni mbër la mu ñu war a daan mooy fexe ba daan ko ba ñëpp jàngi gone yi seen bopp jàng mi nag moo ko waxee mooy dem ci daara ji ñu tarbiye la nga jàng diine ñeneen ñi nga xam ne ñu jàngi na saraat ñu jàngi na saraan waaye nag ñu laltaaye leen ngirum diine ba nga xam ne kenn du leen man a wëlbati kon loolu nag mooy li gën a réy moom dinaa ko dinaa ko cité sax ci nasaraan ni mu ko waxee woon muy le défi de l'éducation quant au défi de l'éducation je ne vais pas m'y éteindre car mes collègues des autres panels en ont longuement abattu mais je dois rappeler avec force que C'est l'un des défis majeurs à relever par le mouridisme dont le fondateur a écrit Inni ujahidu bil ulumi wa tuqa. Je fais la guerre sainte par la science et la crainte révérentielle. C'est une vaste question qui touche à la fois à la formation spirituelle des talibés, sciences religieuses, et à leur formation aux sciences et aux techniques et technologies du futur science euh, du, du, du futur, sciences En effet, dans le monde à venir, quiconque n'allierait pas sciences religieuses et sciences profane seraient d'une certaine manière désavantagées. Trop de mourides aujourd'hui ne connaissent pas assez bien la vision du cheikh Ahmadou Bamba. Pourtant, cette vision est clairement exprimée dans ses écrits, ses actes et paroles qu'on a rapportés. C'est bien entendu un problème qui interpelle la hiérarchie mouride, mais qui nous interpelle tous en tant que talibé et en tant que parent dans le même dans le même thème de l'éducation l'un des défis futurs pour le mouridisme sera de favoriser en son sein et au sein de la société sénégalaise l'émergence d'une intelligence intelligentsia c'est-à-dire pour reprendre la définition d'origine une classe sociale engagée dans un travail de réflexion de création et de euh, dissémination de la culture accompagné par des intellectuels qui dirigent le champ scientifique, littéraire, artistique et dispose le plus souvent de relais médiatiques important À ce propos, je, voulu, je, je voudrais saluer ñuy travail pionnier Daouda Rayahin foofu ci tënk rek mooy euh, njàng mi ci boppam laajul ma ni rek nañ jàngi nañ daan daan mbër mi euh, ñi nga xam ne dañoo xam ci wàllu littérature science art lépp dañoo war a wut ay nit yoo xam dañuy dajaloo càmbar ko ba xool programme boo xam ne moom la ñu war a tëral su ko defee ñu mën di ko jàngale loolu mooy relevé défi bi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mbër mi nga xam moom la ñu dëkk bu ko waxee tudd na ci Rawdu Rayaahiin léegi ci ay téere ñuy bind al wafa li ñuy def ci ramadan ci daaru musti minanul baaxil xadim euh, daaru minan ak yeneen kuréel yoo xam ne yu baree bari ci yoonu murit ñi ngi jóg di di saytu mel noonu waaye nag day laaj nag léegi ñu dajale yooyu yépp mu nekk benn su ko defee ñu programme boo xam ni ci la ñuy mën a jàngal nit ñi ba noppi teg ci boole ci histoire Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ba nga xam ne xale yi bu ëllëgee dootuñu leen mën a jàngal yeneen i tubaab ak yeneen i anglais yoo xam ne ñoom rek la ñuy xam ñoom rek la ñuy loolu it lu mat a bàyyi xel la kon daal défilé mbër la moo xam ne moom bokk na ci mbër yi nga xam ne ñoo ëpp doole ci mbër yi song yoon wi yëpp muy ñàkk gee jàng waaw ñàkk gee ñàkk gee jàng nag waxoon naa leen ko am na ñoo xam ne tey jii ña nga ca daara ji sëñ Saliou defoon na ko xel koom xoolal ak yeneen daara yi ñuy tarbiyewu loolu am njàng la ndax jàngal la alquran jàngal la xam-xam tarbiya la yar la ba nga am jorom ngom jo jom ak ngor wëlfi ko dem liggéey yàlla defal la xéewal nga am lépp ñi fi ëpp tey ay teraanga ci Sénégal fan lañ jaar ci daar yi lañ jaar tarbiya wu kon loolu bu ñu waxee jàng loolu itam ci bokk waaw ko bàyyi xel ndax xëy na ñëpp mënuñoo bokkandoo nekk ci benn école waaye école yi dafay dafay dafay dafay wuute ñii nekk ci école ba ñee nekk ci école ba ñee ngay tarbiyewu ñee ngay jàng diine ñee ngay jàng nasaraan gannaaw bi ñu leen tarbiya ci yoonu diine ba noppi loolu yëpp day am ginnaaw loolu itam mu ni euh, loolu nga xam ne moom la war a def unité bi li ma ci fàtte woon mooy war gin war a nekk benn képp ku dis goro di murit war nga cee góorgóorlu ndax Serigne Touba li mu daj ngir loolu ngir ngir nun loolu war na bokk war war naa bokk ci liñ koy fayee nun boole suñu bopp nekk benn wenn wenn say war na cee bokk waaw kenn ku nekk ngir jëmm yàlla ji nga xamante ni bii moo nu boole Serigne Touba kon bennoo googu ma waxoon ak nekk gi benn ak nekk wenn say kenn ku ne def ko ngir fayee ko Serigne Touba te bañ caa xool sa bopp ci lenn te muy dëgg ci yow nag loolu mooy dëgg te yàlla rek tax ginnaaw loolu itam bun dellusee ci li nga xam ne moo jëm ci défi yi muy mbër yi muy communication lu jëm ci wàllu communication communication euh, li mu ci wax mooy la communication était est un défi très important à relever pour en comprendre l'intérêt majeur il faut juste rappeler cette sagesse populaire qui enseigne que celui qui te prête des yeux oriente aussi ton regard. Il ne suffit plus d'avoir une bonne vision et une bonne philosophie de vie et de faire de bonnes action si on ne maîtrise pas bien la communication. maanaam communication moom ci gàttal mooy lépp rek daanaka ndax li ma leen wax fii yépp buñ ko boolee ba noppi lu ci nekk lu ne bu àndul ak communication mu gunge ko wala mu teere ko mbir ma dara du ci baax lii ñuy def rek lii rek lii rek firnde na ci li ci am solo nag mooy jamono yii ni mu ko waxee ci ginnaaw gis nañ ak dugalu ci internet beeg ci télévision yeeg ci rajo yeeg yëpp ñu samp ko lam la ngi fi télévision rajo Touba TV nangam nag yooyu yëpp am na waaye nag li ci ëppati solo mooy contenu bi li nga xam ne buñ toogee di ko wax ak di ko xamle mu doon loo xam ni lu am njariñ lool lay doon luñ saytu la dool li nekk ci biir maanaam buy bi buñ ko tojee nañ doon fekk buy boo xam ne du yàqu dara du ci nekk na doon lu am njariñ maanaam li nga xam moom la ñuy bind li ñuy wone ak li ñuy jàngale lépp na sukkandiku ci njàngaleem xaadim rasul ba noppi sukkali ci sukkandiku ci ak taalube ak it ci yooyu yëpp daal li nga xam moom communication bi loolu moo ci am mais bu fekkee ni ñeneen ñi nañ koy def alhamdulilah rabbil alamin yii nga xam ne ñoo fi nekk di kii communication ci yoonu murit amul benn sénégalais boo xam man nga ni tey jii jëriñu ma ci bu fekkee yaa ngi koy seetaan waaye amul benn sénégale sénégalais bu moon wax ni moom de mi ngi nuy yàqal déedéet feneen kay nga gis sa doom di fa yàqoo wala sa soxna wala leneen wala mu jël sa temps yàq sa digg ak yàlla waaye amul benn nee la ci yooyu tey ji doo xool Lamp Fall mukk waxuma ko pour dama fee toog déedéet ndax man waxoon na Sëñ Tuubaa rek laay liggéeyal waaye li wér mooy kenn ku ne gis nga ni yaa muy mag di ndaw di góor di jigéen ñëpp kenn ku ne njariñ rek nga fi jële amagul lenn loo fi jëlee koo xam ne da nga naan yàq nañ sama doom yi wala yàq nañ sama njaboot gi wala lii nu ko nuñ koy génne ci télévision lii nu ko di nit ñi déedéet benn programme nag laa wax amul kon nag li ci am solo mooy améliorer rek nag mu gën a nag parfait gën a dëgër gën a jekk gën a jekk maanaam tolloo ak li nga xam mooy maqaamam yoonu murit yoonu murit dayoo bi mu am outil de communication yi am dayo bu toll noonu foofu la wax ci nekk fi ñu toll yi waaye nag li ci am solo mooy euh, waa góor moom ku ne xam na ni war naa mën a nekk ci li nga xam ne moom mooy dem ginnaw loolu itam ci wàllu communication bi euh, ginnaaw bu ñu noppee ni ma ko waxee léegi yemul ci yii rek ndax tey jii bëggumaa wax waaye sëñ Cheikh bind na ko xëy na fàttewu ko sax waaye la ko tàmbale woon ci almurid muy sëñ bi cuun doon ko bind ak ndigal bu Cheikh Abdoulaye Dieye communication bi amoon na ay journal wax naa la ko journal boobu itam journal yi bokkuñu ak yi ñu gis ni muy Touba magazine di la voix de Touba a ah, dama koy wax na waaw ah, ndax la ca biir la nga cee def mooy jariñoo ci ci loo xam ne ci Sénégal la jëm ak yoonu murit ak jàngat sa doom ak xam yoon wi waaye doo ci gis mukk loo xamante ni bi du ay yëf caxar li ndax léeg-léeg ubbi journal liir ko loo xam ne rek nga koy bëgg def waaw xotti rek nga bëgg sànni ngay def waaw ci bëgg dara loolu nag mooy outil yi nga xam mooy télévision bi ak rajo itam journaux yi itam noon lañ mel muy tubaa Touba magazine ak la voix de Touba loolu it noon lañ mel kon loolu mat a bàyyi xel la xanaa li ci des rek mooy ñu fas yéene ba eh, maanaam ni ma ko waxee ci wàllu mbër mi dëkk yoonu murit ci wàllu média boo gisee Sénégal tey ji télévision yi ak rajo yi am na ñoo xam ne waxuma ko pour kenn bu ko kenn jël ku ko jël nag moom ko mu mal sa bopp ci sous région bi yëpp ak ci àdduna bi yëpp boo fi doon wër réew yi di tukki dal ci hôtel di seetaan doo fa gis moyen d'âge bi ngay gis ci Sénégal ñu toog ci télévision ak ci rajo di wax ñu bàyyi leen te amuñu background amuñu expérience du ay diplôme du dara loolu li muy nuire ci benn nation kenn xamuñu toll du ñëpp nag am na ñoo xam ne jàng nañ am nañ xam-xam am nañ expérience mais am na ñoo xam ne xamuñu ba léegi lan mooy communication te ci rajo yi ak télévision yi Sénégal ba ci journaux yi da nga ciy xam ni naa la amul benn réew fii rek la am. fii rek la doo dem benn réew bu seen télévision fa gisul waaw waaye ba am fukki at juróom-benn wala ñaar fukki at wala nangam nga xam ne bu toogee sax xamul li muy wax n'importe quoi du lu mu jàng du dara mais mag ñi sax am na ñoo xam dañu daan dem boo demoon tey ci européens yi boo demoon euh, boo demoon France France 24 wala yooyu ak yeneen yeneen télévision boo fa demee ay ku ay màggat yu bi bijaaw nga fay fekk ay borom expérience del xool seen journaux ak seen débat yi xool. boo ko comparé ak débat yi ngay gis fii ak yenn yi da nga ree jàpp foo xam ne dañu dafa caag ñu reetaan ba nga xam ne débat bi sax dootu sax dootu nit ki dootu ci gis daal dootu gis boppam parce que reetaan yaag tàppante baag nangam xulu ba déedéet demal ci yeneen télévision Angleterre ak feneen CNN fu ne nga xool ñoo xam ne ay juróom-benn fukki at la jël mais nag bu fekkee ne jeunes yi yi lañ jël ko xam ne dama ko yow war a guider ñu jël la teg la ci kanam ngay non loolu nag tekkiwul ni jeunesse jeunes yëpp noonu lañ mel déedéet am na ñoo xam ne dañoo duwee am ci ñoo xam dañoo ami teggin xam li ñuy wax teg ko ci yoon loolu ku ko gis xamu waaye li may wax itam ku xool rek di observé di nga xam ma la wax waaw ne veut pas dire que ni jeune bi a ah, a mën a tax mu toog di wax lu ñu nit ñi dégg waaw ñu bari ñu loolu moo tax waaw wala wala rajo parce que dañuy xool bi ci ak ñu xam ne lii kenn xamatul lu ñu loolu nag mooy ñun sénégalais ñun africain noo xamul ba léegi luy outil communication ñun noo ko xamul noo ko joxul li nga xam mooy àqam boo demee Europe doo ko fa gis moyen d'âge bii nga xam moo nekk Sénégal ñu nekk télévision yeeg rajo yi boo demoon France doo ko gis ubbil seen i télévision ndax des di nga gis xale yu toll noonu wax doo ko gis jamais loolu dañ ci bàyyi xel leen li ci mooy diaspora bi moom itam am na lu mu ci wax ma dikk ci tuuti bon waaye fii benn phrase la boo xam mënu ko wax mënu ma ko bañ a wax ci wàllu lii communication euh, mu ni il y quelque chose plus important que la simple maîtrise de ces outils technologiques télé internet mobile journaux extra qui permettent l'émission et la division des contenus. Il s'agit de la perception, qui est l'enjeu principal de la communication. Autrement, il nous importera que les images du khalife ou des symboles du mouridisme ne soient pas manipulées par des politiciens en manque de légitimité ou détournées à des fins profanes, pécuniaires ou parfois même immorales, comme dans certaines musiques ou danses. li ma noonu unité ba. bu fekkente ne bii ab politicien jóg na di utiliser symbole yoonu murit masam diw ni man maay Baye Fallu président mais président amul ma xam am Baye yow mi ko wax itam doo Baye Fall ah ki doon ak ki mu doonoon noon Baye Fall fu ñu mosaan gis rek yàlla su borom bég ki ñu doonoon Baye Fallam ak noon doonoon Baye Fallam ñaar fu ñu mosaan daje fu ne ars yëngu yow nga jóge fële say yëfi profane rek say nangam nga naan maay Baye Fallu diw kooku amul ma xam am genn wàllu Baye yow matoo ko kon loolu loolu la wax fii symbole yooyu du lu ñuy foyee mooy li ma waxoon tànk ci unité bi sànq dañ ko war a dañ ko respecté jox ko àqam mi ngi mel ni tey ñu ne xalif général de nangam ci làmb ji manque de respect ak manque d'expérience ak manque bagage foofu la mën a yem lu toll ni xalif général symbole bu toll noonu muy muy ci tarixa yëpp kenn ku nekk yaakaar leen réew mi yëpp nga jël ay mbër naan muy xalif général de de de nangam wala ay promoteur wala nangam nangam mais loolu kooku kuy def loolu war a toog télévision xalif général xam ngeen mooy lan Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké Sidi Abdou Sy nangam nangam ñooñu yëpp sëñ maam bu Kunta ci Ndiassane ay xalif général symbole bi tur yi ñu war ko màggal war ko jox cir kenn waru ko foye ñu jël ko di ko di ko ko delloo ay mbir léegi ah, voilà mooy li ma doon wax ngi noonu waaw ah, te mi ngi nii moom la sëñ Cheikh Faye Mbacké Gaïndé Fatma wax fii léegi bon enfin nous n'avons pas toujours besoin de propagande médiatique car notre meilleur marketing est et le bon comportement que les mourides doivent avoir individuellement et collectivement. C'est la meilleure manière de montrer la primauté de l'enseignement du cheikh maanaam ñun soxluñ propagande yëpp dinañ waxtaan ci sëñ bi nag waxtaan ci sëñ bi day nuru propagande maanaam sëñ bee ko def ñu di ko wax yàlla ko may te loolu dañ koy béyal suñu xol nag waaw may son borom la da koy wax tiitaroo ko waaye ak may la wa ammaa bi ni'mati rabbika fa haddis yàlla nee na lu ma la ci xéwal waxtaane ko waaye pas titre wala sago déedéet loolu nag tax na nun mu soxlawuñ propagande maanaam propagande mooy fas yéene li sëñ bi digle ñu nekk ci lim tere ñu bàyyi ko ak li nga xam moo ci fekkoon démb te dara ku ci buñ ko defee rek daal xoolal ku la gis ku ne day ñëw sa ginnaaw soxlawul propagande waaw meilleure manière bi daal muy yow muy muy par benn nit muy mbooloo waaw nekk ci li nga xamante ni bii mooy li bi digle woon rek mooy marketing bi waaw comportement bi daal moo am solo beneen bi topp mooy la diaspora ci mbër yi nga xam ne dëkk nañ wala bokk war nañ leen a daaneel l'un des défis du futur pour le mouridisme est aussi le défi de mettre l'immigration au service de la diplomatie sénégalaise et de l'expansion du mouridisme certes l'apport économique et social de cette immigration est considérable mais force et de constater que cette immigration malgré quelques succès n'a pas réussi à propager largement le mouridisme comme on pouvait s'y attendre maanaam moodu moodu yi jàmbaar lañ lool li ñu def ci réew mi ci xéewal yi ñu def yépp waaye nag liñ doon séntu dëgg-dëgg itam des na nag li ñuy séntu mbër mi ñuy séntu daan ko ci yoonu ci yoonu mur ci bitim réew des na te loolu ci lañ jëm si nii les bonnes pour une présence mouride dans beaucoup de pays ont été jetées il reste pour la communauté mouride d'investir dans la formation de ressources humaines de qualité capable d'allier la maîtrise des sciences religieuses l'enseignement du cheikh la culture mouride et celle des langues internationales anglais espagnol allemand et d'affecter ses ressources comme ambassadeur culturel euh, du mouridisme à la charge de la communauté mouride dans ces, dans ces pays, dans ces pays d'accueil. Si nous, si nous relevons ce défi, nul doute que le nombre des autochtones de ces pays qui épousent la philosophie mouride ira en s'augmenter, en s'augmentant. Et, et, et ce sera très stratégique pour faire avancer l'intérêt diplomatique du Sénégal euh, d'une manière particulière et de l'islam d'une manière générale loolu mooy li nga xam ni moom lañ ci wax mooy yoonu murit dem nañ ñi ngi yónnee seen wayjur yi xam nañ ni moodu moodu yi li ñu def lépp bu ñu fi nekkul woon dana am famille yoo xam ne tey dañuy faat dañuy sonn ña nga fa daan seen doole rek loolu yëpp am na Matlabul Fawzayni tey solidarité dama ko ci fàtte mënoon naa ko ci boole Matlabul Fawzayni xool leen hôpital bu toll noonu tey bu fekkoon ne hôpital boobu moodu moodu yi tabaxuñ ko daayira Matlabul Fawzayni tabaxu ko ab daayira rek ko tabax buñ ko tabaxlu woon état état moo ko fa a def te kon léegi état la mu fa def yoonu mu dimbali na ko ba xaalis boobee moom mën naa xaj feneen mën naa dem Matam wala Ziguinchor wala mu dem fu ne xaalis ba ñu waroon def ci moorloo Louvre Soni léegi murid yi def nañ ko fa loolu ban genre contribution la loolu nag la bëggoon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax kon léegi li ñu wax li ñu war a wax fii mooy diaspora bi li ci des mbir mi ñu war a daan mooy fexe ba former ay nit lu tax doo gis ñu naa ay missionnaire fii Sénégal ay diine yoo xam dañ fi yebal ay missionnaire témoin de Jéhovah nanga ma ki naanga dugg nañ parcelle fu nañ ngi tas réew mi am seen fu la ñu ne fa di woote seen diine léeg-léeg sax ñu fëgg sa kër kon yoonu murid nag léegi egg na ci ñu former ay nit bañ ñu ar jàng xam-xamu diine man anglais wala français wala allemand su ko defee ñu yóbbu leen ci kër sëñ Tuubaa ubbi fi ay bibliothèque nga xam ne ñoom loolu dong mooy seen liggéey ambassadeur culturel waaw inni uxaatibu nasara turra fi ardihim li kii muttara foofu laa leen di fekk di wax ak man sëñ Tuubaa yéen kon loolu li mu murid egg na ci fi mu toll war nañoo jóg di former nit ni ñuy yónnee ambassadeur Sénégal yi ñu yónnee nit ñoo xam ne ambassadeur culturel yoonu murid la ñu doon ngir ña fa nekk ñu mën a dugg ci yoonu murid daal di koy épouser daal di ci bokk waaye nag lañ fay jëlee ci xaalisa ak xéwal ak yëpp ak yem rek ci benn kër sëñ Tuubaa ñu di fa jàng ak di fa cant ak yooyu dafa am mission bi leneen la laaj dugg ca biir tubaab yi fexe ba xettali leen ngir bu ëllëgee ñu bokk ci xeetu Seydina sallallahu alayhi wa sallam dafa laaj yoonu murid former ay nit jël leen en charge taalibe fa nekk di leen jël en charge yu wutal leen ay kër yu bokkul ak yooyu muy këri ambassadeur culture yi yor murid loolu moom bokk na ci défi yi bokk na ci mbër yi nga xam ni war nañ koo daaneel beneen bi toppaat ci wàllu googu mooy waaw foofu nag mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy jeexal rek ci conclusion bi ndax nee na li nga xam ne moom lañ wàcc ci dëgg-dëgg ci tàmbali ba li liggéey bi baax baax ak li ñuy jàmbare jàmbare ak li ñuy yónnee lépp daal li am solo mooy jot nañu formé ay nit ñoo xam ne dañ leen di jàngal ci Touba wala fii bañ jàng xam-xamu diine ñu formé leen ci ay langue ñu man français allemagne ku ci nekk fu nekk ñu yóbbu la fa ba ci Japon Chine sax pourquoi pas ñu nekk fa di jàngale li nga xam mooy tariqatul muridiyya te mooy l'islam alquran ak sunna tasawuf yar ak teggin jàmm ak salaam bëgg ñëpp yiir ñëpp wan leen sëñ Touba su ko defee nag la mu waxoon rek yaa malikal mulki yaa man jàlla an xawdin irham jami al wara yaa hadira jaarale ko ci sëñ zimaamul wara asri la dallahi fi yadi wa maarumtuhu min malikin xaada bil ani nasub bindeef yaa ngi sama loxo kon léegi loolu nag léegi yoon nag moom la war sëñ bi moom def na li ko war ba noppi moo tax ma ne nun ñii li ñu yor ci capacité ci xaalis ci xam-xam ci mbooloo ci doole wax dëgg yàlla fi mu toll bu ñu dajaloon waxuma Sénégal de barke alquranul karim dëkk yi ñuy wër yëpp yoon wi mën na leen lijjanti waaw organisation bi rek la laaj li ci mooy conclusion ci laay jeexale li nga xam moom la Nous arrivons à la fin de notre exposé après avoir essayé d'évoquer les grands défis, notamment politiques, auxquels sera confronté le mouridisme dans le futur. Je n'ai pas évoqué le statut administratif et le devenir de la ville sainte, euh, de, de la ville de Touba, car c'est en soi un vaste sujet qui nécessite beaucoup de réflexion. J'ai été quelques défis, j'ai cité quelques défis très importants qui, s'ils sont relevés, pour permettre aux Mouridisme de se poser, de se projeter sur l'avenir avec tous les outils en main pour réussir sa véritable mission qui est d'être formidable mouvement, un formidable mouvement positif au service de la, au service de la société et du peuple sénégalais, mais aussi de tout, de toute l'humanité. J'ai aussi suggéré que le mouridisme n'a pas finalement vocation à faire de la politique et à conquérir le pouvoir temporel. Par contre, des mourides à travers le jeu démocratique et en tant que citoyen peuvent tout à fait prétendre à diriger à diriger politiquement le Sénégal comme tout autre citoyen mais en le faisant un mouride ne devrait pas se prévoir, prévaloir euh, d'être le candidat des mourides mais le mouride candidat de tous les Sénégalais pour tous les Sénégalais waaw candidat de tous les Sénégalais pour tous les Sénégalais après tout il n'y a plus grand service qu'un mouride président ou ministre peut rendre peut rendre au mouridisme que d'être équitable, juste et compétent au bénéfice de toute la République. On n'a jamais vu un chef religieux mouride digne de ce nom demander à un officiel mouride de favoriser uniquement les mourides au détriment des autres. Ce serait d'ailleurs contre tous les principes de l'islam. foofu ma taxaw fi mu ne nag euh, li munta nekk mooy man maay candidat mouride yi mouride yi mën nañoo politique waaye doo taxaw may maay candidat mouride yi déedéet da ab murit laa waaye maay candidat loolu la wax kenn ni maay candidat murit waaye da nga naan je suis un murit candidat murit laa waaye doo ni je suis le des murit parce que loolu mënut a nekk existé wul sëñ Tuubaa ñëpp lay dimbali te képp ku topp ci naa itam looyar lu ne ñëpp nga koy boole ñëpp ngay liggéeyal xidma bi foofu la jëm maanaam fexe ba dans l' ensemble des sénégalais sans distinction ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp nga defal leen yemale leen ci li nga di jox foofu nag dinañ fi am benn kii bu tuuti mooy bu ñu nee yemale bu ci kenn sukkandiku daal dina gis ngeen bu ëllëgee bu ñu defee Touba dara ñu ni nangam nangam déedéet foofu it nañ fi dellu si maa taxaw moom di ko leeral tuuti Touba tey jii dañ ni sax ndakaaru ginnaaw ndakaaru Touba ci tot ci ay nit mais man gëm naa sax Touba ëpp ay nit ndax ñi dëkk Touba buñ ñibbi woon bu tey buñ ki jee wala ñu màggali li des ndakaaru la nekk Touba moo leen di ëpp loolu amul werante kon léegi nag nit ñi nañ bàyyi itam ni ñu bëggee ñu ne yemale itam buñ ne yemale buñ defee ci dëkk diine bee wala dee def Touba déedéet la ñu war a def Touba moo war a ëpp lañ def ci beneen dëkkub diine xam nga lu tax nombre bala lay jóge ci xaalis ci ay impôt ak la ñuy consommé muy dellu ci trésor ñu di ci tabax ay tali dafay li ci jóge ci Touba jógewul ci benn dëkk dem ci benn benn amul benn dëkk bu nekk Sénégal ginnaaw Dakar boo xam ni li li Sénégal di jariñoo ci xaalis ci trésor Touba di leen ko jox beneen dëkk joxu leen ko lu tax mooy mbooloo ma nam toll la loolu moo tax ñu deuxième ville du Sénégal maanaam ci waxin waaye Touba moom ma nga ci kanam mooy moo jiitu waaye nag ci waxin ak it ci économie ak niñ koy xaymaa Touba nee naa la boo ko xoolee sax dañ ni Ndakaaru bu jallee ñoo fi ëpp ay nit dama bu ñu ko xoolee bu ci biir bu nit ñi màggalee wala ñu tabaski boo moytu la nekk Touba mooy ëpp li nekk Ndakaaru kon nag Touba buñ joxee benn dëkk 10 milliards wala 5 milliards Touba dañ koy jox 30 milliards ndax lafa nekk ci mbooloo di participer ci biir réew mi moo nekkul ci beneen dëkk loolu it nit ñi dañ koy déggee noonu waaye nag bu fekkee ne dañoo def dara rek ñu ne ah Touba lañ ko jox wala jox déedéet ay citoyen lañ waaye dañoo ëpp mu ngi mel ni tey ji ngay séddale añ ci kër gi ñett ñii sukk fii nga jox leen benn palaat waaye fukk ak juróom yi nekk fii doo leen jox benn palaat ñetti palaat nga leen di jox noonu rek la Tuubaa demee ak yeneen dëkk loolu nag léeg-léeg nit ñi dañ koy fàtte ba tax nag it ak Sénégal daal nit ñuy dunde moo xaw doy war waaw boo jagleele Tuubaa yenn yi ñu ne lu tax ñu jagleel ko loolu toll déedéet noonu la war a toll waaw ndax ginnaaw Ndakaaru ñaata hôpital la am Tuubaa waroon naa am ñetti hôpital léegi waroon naa am nangam ak i li ñuy participer ci biir trésor ñu denc ko fii xaalis ñu di ci tabax ay tali di ci tabax ay hôpital di ci fay ay ministre di ci fay président di ci fay ñeneen jàngalekat ak ñeneen Touba li ciy wàllam di ci dugg ci xaalis amul beneen dëkk bu toll noonu ginnaaw Ndakaaru loolu mat naa xam kon dañ ci bàyyi xel ba kon foofu yamale itam dafa am loo xam ni bokkul fee li mu ci wax nag mooy képp koo xam ne nag yaa ngi jiite réew mi wala nga bëgg koo jiite ngaa doon ab murit di politique def lépp waaye boobaa it nag da yemale Sénégal yëpp liggéeyal Sénégal yëpp ngir mu jeexal mu ni pour illustrer ce propos un ami talibé m'a récemment raconté une petite histoire très intéressante ayant occupé des fonctions stratégiques au sein de l'appareil d'État il y a quelques années il avait volontairement quitté son poste car le travail et les orientations de son employeur n'entraient plus dans ses convictions morales et éthiques waaw après cela une personne compatissante lui faisait le vœu suivant puisses-tu retrouver un meilleur poste Ainsi, tu pourras servir les mourides et satisfaire <laughs> leur besoins. Mon ami lui répondit, je te remercie pour ta sollicitude et dis amine pour tes prières, mais avec une réserve. J'espère qu'ayant retrouvé ce poste que tu souhaites, je serai au service de tous les Sénégalais et pas seulement celui des Mourides exclusivement. D'ailleurs, en agissant de la sorte, je serai perçu comme un partial injustice injustice et juste je serai perçu comme partial injuste ou inéquitable et au final je rendrai pas service au mourides car je les car, car je les représente foofu ci gàttal yéen ñi xamul li wax mooy dañu ko dafa nekkoon ci gouvernement bi di liggéey ba ci yàgg mu bay ndax que muy liggéeyal di kilifaam ni mu ko bëgg a jaarloo na ni lii gor waru ko nangu jom nit ko am jom wala ko am ngor wala ku bëgg réew mi waru ko mu bàyyi mu toog ak menn mbokkum taalibeem nag di ko nettali man da bàyyi naa mu ne ko yàlla na la yàlla dimbali nga am liggéey ba mën cee jàppale murid yi liggéeyal ci murid yi waaja ni ko déet amin ci sa wax dëgg yàlla yërmande ji ak mbaax gi ak li nga may yéene yëpp yàlla ko yàlla def waaye nag bu ëllëgee itam su ma yoreeb liggéey bul jàpp ne dama fay nekkal murid yi rek ndax bu boobaa sax kon injustice laay def te du ma yemale te bu boobaa sax dinaa def les contre valeurs yi nga xam ne valeurs yi nga xam moom la islam yoon Sëñ Tuubaa bëgg ko yooye man day jaar nee ma jaar nee kon kay ñaanal ma rek ma am ko te bu ma fa nekkee li ma gën a mën a defal murid yi ñu war a gërëmal ci benn mooy nekk fa ba noppi xeet li doomu aadama yëpp ñu ne xool leen murid bee waay ministre mooy ministre sàngam xool leen ko li mu liggéey fee voilà foofu la foofu la mbir bi nekk maanaam ñu nommé le ministre ngay taalube liggéey liggéey boo xam ni dañ naan kenn mus benn ministre bu mus tawee liggéey lu mel nii ñu ne ko la ñu ne ak ah kee de sëñ Saliou sëriñam kee de sëñ Fallou sëriñam kee de diw sàngam noonu ci misaal kon foofu la wax nekk waaye nee na ko du caagin dama koy nekk rek daal di rek waaye waxoon léegi rek waaw maanaam kenn ku ne xam ni lu ci nekk dafa am lu mu laaj ak mbooloo mu nekk lañ ko war a jox waaye lii mu wax nag mooy dëgg kon li ñu bëgg a wax rek mooy boo gisee taalibe yi di am réserve di am ak tey ci ñiy war war a def politique ci wàllu taalibe yi eh, ñu naan politique kenn waru ko def ak nangam nangam xam nga lu waral mooy da am ñoo xam ne amuñu xam-xam amuñu diplôme seen intérêt moo tax xamuñu am réew nu muy doxe xamuñ ci dara. farfar loolu ak élection parti sangam loolu la loolu moo tax yenn taalu yi du ñu bëgg sëriñ si dugg waaye sëriñ boo xam ne am nga xam-xam am nga jom ngor di patriote bëgg réew wane compétence boo boobaa waroo xaar suba suba suba te duggoo ci politique bi waroo xaar waaw nit ñi nag boo duggee xammee nañ ku dugg ko rek xammee nañ waaw loolu nag lu mat a bàyyi xel la kon loolu laa bëggoon ñu wax ko ci wàllu googu incha allahu rabbi dinañ ci dellu siwaat waaye am na nag loo xam ni mooy dikk sëriñ Assane yaakaar naa ni kon fi ñu toll li jëm ci wàllu téléphone yi mën nañ koo ubbi su ko defee bokk yi du ñàkk ñoo xam ni bëgg nañoo ànd ak ñun tuuti ci waxtaan wi su ko defee ñu def nag ci conclusion bi nga xam ni muy tënk lii lépp fi la ñuy jàllale ak li nga xam ni mooy jëm ci li ciy jeex kon numéro téléphone baa ngi noonu képp koo xam dugg nga rek li la waxoon keroog ñu ngi lay may ñaari minute rek nit ñi fi duggoon keroog mel ndax am na soxna su fi dugg dukki yëmbal ak keneen waaye ñoom seen wax rafet na sell na mënees na cee jariñu ba noppi leer na ba noppi euh, guddul waaw loolu yëpp daal lu mat a xella xel ci téléphone bi ndax maa ngi yéen kenn ku ne da cee bëgg a waat kon ku ci dugg ku ne tënkal li ngay wax te bañ a dellu ginnaaw ak di kii ak yooyu déedéet waaw li ma waroon wax ci mbirum sëñ bi ak yoon moom wax nañ ko ba noppi kon da nga indil xam ne noo gisee lii mbir mi ak noo ko jàppee ak noo ci loo ci déggee loolu lay doon mu tënku ginnaaw nag nu ñëw ci li nga xam moom moo ci desaat li fekk kenn di dugg ci téléphone bi sëñ Assane mooy li nga xam ne moo des ci waxtaan wi euh, dafa am lu ma gis loo xam ni mooy maa ko jàngat seetlu ko mooy que le Sénégal et les Sénégalais sont mal protégés waaw loolu mooy gis-gis sont mal protégés euh, li ma ciy tàmbalee mooy boo demoon tey ci frontière u Sénégal wetu Gàmbi gii wala feneen dama ni Sénégal ak Sénégalais yi sont mal protégés ni ñu leen war a aare aare leen noonu naa jëkkee Sénégal demal ci géej gi gis nga ni am nay bateau tubaab yu bari yoo xam ne guddeeg bëccëg jën yi dañ koy yóbbu kon Sénégal peut-être aaruñu ko foofu demal ci suñu bant yi rek fii ci Kolda ñuy jóge ci yenn réew dugg Sénégal di jël bant yi di ko yóbbu Chine kon léegi kon Sénégal aaruñu ko ni ko war a aaree boo ko lii nga xam moom li ñuy wax guddeeg bëccëg alal ji nga xam ne am nañ ko wala li ñuy séntu di ko am muy gaz muy pétrole ndax ni sart euh, yi ñu ci war a jàppante nit ak société yi ñuy signal ndax signé na ñoom ñoom ci loo xam ne lu leer nañ la Sénégal yëpp mën koo xam ñu génne ko wane ko ñu gis ko loolu it lu mat a bàyyi xel la loolu nañ ko sauf si aaruñu Sénégal ni ñu ko war a aare li fi nekk ci étranger looyu waxuma Ndakaaru rek waaye biir réew mi ci boppam fu ne nit na fa bismillah bismillah ah waaleykum salaam waa kay ñu bu baax waa euh, sa sam la bu dëkk Thiès waaw noo tudd sëñ bi waaw ñu lay ziar bu baax xam naa la ñuy def dañuy tur wi waaw bisimilah bisimilah. ñu ngi lay jaar bu baax a baax a baax sa émission bi di wax lu yàlla ñu ngi koy rafetlu bu baax baax a baax. jërëjëf jërëjëf. ak saa su nekk nag lañ koy teewlu bu baax a baax a baax a baax lu yooyu nekkoon nañuy bàyyi lépp ngir sa bi jërëjëf jërëjëf. ñu ngi ñaan ci yàlla mi nga xam ne nii moom moo man lépp tey def lépp yàlla na yàlla guddal sa fan wala say cër. amiin amiin amiin. dëpp laa ngërëmu sëriñ bi. jërëjëf jërëjëf. émission émission yi nag li ma ci li ma ci gën a li ma ci gën a jàngat. mi nga xam ne ñooy ay taalibe te di ko teewlu. waaw. nañ ko jotal seen moromi taalibe yi bañ man cee jot. di ko seetaan. ndax bari nañ ñoo xam ne ñi yeneen yoo xam ne nii xëy na ñàkk xam émission bi ñii ñàkk xam émission bi moo waral nekk ci yooyu te émission bi mhm. amee ni ngay amee sa garab dem ca dem ca pharmacie bi jë jënd ko. Mhm. émission bi noonu a mel ci murid yi. ndax bi murid yëpp lañ ca war a jot mu nekk seen mu nekk seen or nekk seen garab gi leen di faj ndax émission bi day fajaatee. alhamdulilah rabbil alamin sëñ bi émission bi émission bi li ngay bëgg ci li ngay bëgg ci jaam mënoo koo xam ñu li lay ñaanal tamit mënoo koo xam amiin amiin amiin amiin ñi koy teewlu ñi koy teewlu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp tey ji boo leen xamoon mm. ak fañ toll ak fa la fam leen toll ak li ñu li lay ñaanal mm. soo ko xamoon yàlla mi ci xam ne ne wallaay naa si loo doon def di nga ko yokk alhamdulilah rabbil yàlla na la yàlla fay ci barke Sëriñ Tuuba jërëjëf jërëjëf kontaan nañu ba baax a baax a baax ci yow wër na Sëriñ Tuuba Mbàkke kontaan nañu baax a baax ci yow yàlla na yàlla kontaan ci yow barke Borom Tuuba jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan baax a baax ci jërëjëf jërëjëf kontaan baax a baax a baax ñu ngi ziyaar Sëriñ Saliou Touré Sëriñ Babacar Si eh, di taalibu Sëriñ Tuuba bu mag bu nekk ci Thiès euh, Sonatel ñu ngi koy nuyu moom itam ak Serigne Saliou si ñu ngi koy ziare bokk ci Thiès yëpp jërëjëf jëf ginnaaw loolu kon ku dugg rek sëñ Assane ñu wéy noonu ci eggal li nga xam moom li ni mu def nii mu tënku rek euh, ñu ngi ñaan nag fas yéene loolu nga wax nag noo ngi koy fas yéene te lu nu yokk lu nu def rek xeeb nañ ko incha allah dinañ ko yokk ci kàttanu sëriñ bi ginnaaw loolu li ma doon wax léegi mooy le Sénégal bisimilah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa sëñ nanga def. ñu ngi sant sëñ Tuubaa bu baax a baax. yal na yàgg yal na fam rom yokk soo fan. bokk taal bi yow la kan. Fallou Xuma. Hmm? Fallou Xuma. sëñ Fallou Xuma. waaw Xuma. Jaxate. Xuma Xuma. ba dara météo leen. ñu ngi sant bu baax. ñoo ngi ñoo ngi lay ñaan yàlla sama borom may may lu gudd fan ak wér. amiin Xuma amiin amiin amiin. dafa la jàmmi àdduna ak jàllaaxira. te mu bokk ko jullit yeeg taal bi yëpp amiin. amiin bidaay bidaay sëriñ bi sagum sagum yoon wi yëpp nga. alhamdulilah. sagum muri bi yëpp nga. alhamdulilah. xool bi fees na ba mënuñoo wax li ci ne. jërëjëf xuma. yal na yàlla sama borom dolli jàmm. amiin xuma ñu bokk amiin. bidaay sëriñ jërëjëf jërëjëf xuma. kontaan nañu. sant nañu gërëm nañu. jërëjëf jërëjëf. yal na yàlla sama borom dolli jàmm. amiin mbaa gëjoo dégg waa Mbakol rek. jërëjëf ñu ngi sant bu baax. alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf xuma. jërëjëf Jaxate jërëjëf jërëjëf mbokk moom nga xam ni mbokk lay doon forcément xummaak sillaak caxateeg toog ñoom ñëpp tureeg bajaan ñoom ñëpp mbaakul mbaakal yooyu <coughs> bisimilah bisimilah salaamaaleykum bisimilah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw sëñ Moustapha waaw sëñ maa ngi jégalu kàddu gi boo ko yëkkatee tuuti rek waaw maa ngi sant bu baax waaw Modou Modou Mbaye Njaareem ah ma ne Modou Mbaye waa Njaareem bismillah maa ngi jégul boo yëkkatee kàddu gi tuuti rek ma mën laa dégg waaw ma ne mbay ne waa Njaareem Modou mbay Njaareem bismillah waaw maa ngi leen mbay mbay Mbaye mbay mbay hmm. waaw maa ngi dëkk quartier Cheikh Anta waaw jërëjëf maa ngi dëkk quartier Cheikh waaw waaw man de li ñuy wax dañoo dee ni murit yi nga ko waxal waaye àddina bépp nga ko waxal alhamdulilah ndax uh, man de yeewu naa ci ci ni nga waxe ci kuy ah. am candidat waaw ñoo ñuy wax naan maay bàyyi faalub diw de naqari na ma lool daa ko mun woon a faj dañoo ñàkk jom rek waaw dama koo munta faj waaye su ma ko mënoon a faj mm-hmm. danaa ko faj loolu jeex na ndax dañ leen a bëgg a wax ku ko waxoon nga taxaw waxaat ni bis ni tey maa ngi koy tudd mel ni waxal nga ma ko waxal nga ko ñëpp mhm. Sëriñ Tuubaa du ku ñuy foye kenn rek ko am waaw kon sëriñ bi man lu waxuma la sëriñ bi waaye ku dëkk Tuubaa dañ ko war a wormaal dëgg la dëgg la man nag fi ne mënumaa wax waaye man xam naa ne man bu doon ni juróom yeer nga ma juróom tey jii yee nga ma fukk wala ñaar maa ngi lay sant bu baax yal na yàlla wéeral sa cër yàlla defal jàmm. jërëjëf Mbaye jërëjëf. defal ko bépp yoon wi defal ko bépp. jullit ñaanal ñaanal ñaanal nu foofu ci albuqaatul mubaaraka rek. waaw buqaatul mu jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. li sëñ bi waxoon ne raamu masiri yi rek yal na nu yal na wés suñu kaw ñun ñëpp jërëjëf kon ma ñu sëñ Assane ñu wéy rek sëñ Ibrahima ne bàyyi ñu eggale kii bi incha allah mooy sunu su kenn duggee bu noppee buñ ko téyee rek ñu eggal tënk li nga xam moom lañ doon wax bisimilah bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ Moustapha Diakhaté. waaw bisimilah. ñu ngi léegi jaare. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. fi mu Muxtaar mu yàgg fi lool te amin amin amin di la ñaanal nga gën a am ngërëma sëriñ bi. yow kenn du la laajte moo tax xam nañ la moo tax laaj ñu sa tur moo tax. <laughs> wax nga dëgg wax <laughs> nga dëgg. Mm-hmm, waaw. xam naa sax lu ma la ci waxtaanee waaye bàyyi Fall moom. waaw. kenn rek ko am. loolu wax naa ko léegi moom. kenn képp Sëriñ Tuubaa rek. Mm-hmm. yë tëkkale beeg dendale bi maanaam dañoo dem ba léegi man mbir yi sax ci dara man fi mu ne. Ah, yow boo yoree sa mën kii sax defe rek yow yaa yor lépp te fekk yow yoroo dara. sëñ Tuubaa du ko ñuy foyee Tuubaa du yitu ko foyee sëñ Abdoulaye newoon na kuy fo fa sa yaakaar ne teggi ko ak ko mën a doon nañu góolu sëñ bi yaakaar sëñ bi déglu sëñ bi jërëjëf te jàpp ci sëñ bi jërëjëf jërëjëf yow moomu nag hmm. kenn nga kenn te parce que sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dina la fay amiin yow moom booy ma sakal daal alhamdulilah rabbil alamin dañ ci am ndam parce que sëñ Tuubaa dañ ci am ndam alhamdulilah kenn mënu laa teex la alhamdulilah rabbil alamin moom daal nekkal ci moom daal li nga nekk nekk ci rek. alhamdulilah rabbil alamin ñi lay topp moom saa boo waaye sëñ bay sëñ. sëñ bi. sëñ rek sëñ. jërëjëf ku ñu koy tëkkaleel nax nañu la jéggi nañu la ak koo mën a doon barke sëñ Tuubaa. jërëjëf jërëjëf. wa maa tawfiiqi illaa billah jërëjëf. jërëjëf jërëjëf sant nañ la bu baax a baax. ñu ngi rafetlu sa taxawaay baax ak sa say teggin ak si bëgg Sëriñ Tuubaa saa yoo duggee rek mu feeñ ci euh, kon ba tey ku dugg rek mu yëkkati kàddoom ndax euh, bu ma déggul déggin wi du xaw a neex loolu moo ngi ñaan kii képp koo xam dugg rek nga yëkkati sa kàddu bu ko defee ñu mën laa dégg bu baax a baax ba mën a xam li ngay wax <coughs> kon li ma doon wax ma dolli ko ci mooy euh, boo xoolee tey li ma ni protégé wuñ ko bu baax Sénégal sauf si tey gis nga suufu Sénégal sëpp dinañ dem ba jëmmi jamono étranger yi sañ-sañ bi ñu fi am yaakaar nañ ci sous région bi ak adduna bi yëpp ni étranger amee suuf léegi ni mu ko moomee ci Sénégal amul réew mu am loolu nag day ma tax bàyyi xel ngir future génération ëllëg ak réew mi politique bi ñu mëne ci wàllu ubbiku ci wàllu investissement politique d'investissement war nañoo xool ba xam fan fan lañ ci war a yem ak fuñ loolu itam baax na waaye nag nañ xool fu ñu koy teg waaw maa ngi ci seetlu benn mbir sax boo xam ni yàgg naa ko xalaat bëgg koo wax lu mel ni pompier gii nekk fii ci Dakar eh, jox nañ ko Marocains yi mais foofu xëy na man de yaakaar naa ni camp Abdou Diassé mais camp kenn du ko tiim eh, étage yi tiim camp Abdou Diassé loolu manque de sécurité la ak terrorisme bi xew ci àdduna si léegi ñoom ñuy waaje nu ne bu ëllëgee ña fay luye mën nañoo nekk ay ay agent secret joge ci yeneen dëkk ñëw tiim camp Abdou Diassé eh, est-ce que loolu seetlu nañ ko ay étage yu tiim ab camp boo xam ne camp stratégique la ci biir lu bari fa lay jóge Sénégal bu ñu réglé ñu jox ko ay nit ay étranger moom ko bu fa ëllëg ñeneen luyee dëkk fa am na ñoo xam ne nañ faa luyee di espionné wu Sénégal nu leen neexee c'est c'est très stratégique erreur am na ci waxuma sax ca njaayeen waag yooyu waaye jëmmi rek diggante boobu rek erreur bu mag a mag am na ci waaw militaire kenn du ko xool waaw jàll ci li ma doon wax mooy manque de protection bi nga xam ne Sénégal am na ko ci wàllu mbay mi gerte gi xoolal nit ñi dañuy bay ba bëgg a dee waaye la ñuy bay duñ ko jariñoo daanaka hôpital yi Matlaboul Fawzeyni rek dem démb gis ngeen ñuy manifesté wu maanaam biir hôpital yi manque de personnel bi ak manque de matériel bi Thiès gi mu am ko doon wootee léegi hôpital régional bi am na appareil boo xam ni bu la bu la dara lay soxal beneen hôpital lañ lay yóbbu boo xam ne privé la ci biir Thiès lu toll ni ab région di manqué appareil boo xam ni beneen privé am na ko ci biir Thiès fa lañ lay évacuer kon c'est mal c'est mal protégé les Sénégalais son mal protégés boo ñëwee ci xale yu ndaw yi jeunesse bi kan moo leen protégé ci diggante télévision yi li leen di woon ak pom yi leen dugal wal muy fecc meeg làmb jeeg yeneen ak yeneen kan moo leen protégé kan moo leen protégé diggante seen bab yi xale yu ndaw yi babi foot kan moo leen protégé bu ñu xëyee waroon na jàngi jàdd dem ci babi foot bi seen bàyyi du ci xam dara kan moo leen protégé jigéen ñi kan moo leen protégé bërki démb Thiès ab quartier boo xam ne amul courant amul dara xale bu amagul at sax ñu dem violé ko siif ko ba adduna sépp di jooy kan moo protéger Sénégalais yi tali kan moo leen protégé même ñi ñu wax sax données personnelles yi wax yu bees yi sax nan am na ku ko dénk bu di ko saytu gis naa tey ci benn journal mu amul aw mooy moyen pour mën a saytu mbirum données personnelles yi nekk ci ci ci ci ci ci kii bi amul mooy hôpital yi mu waxaale ma ko salariés kan moo leen protéger tey suba geraw ngoon geraw ndax ñii nañ fayuñu ñu toog nañ ñetti weer fayuñu ñu travail yi ñuy dàq kan moo leen protégé le Sénégal et les Sénégalais sont mal protégés c'est la réalité kan moo leen protégé xale yu ndaw yi nga xam ne dañuy dañ leen di violer góor ñi jigéen ñi mairie de Gonaas rek bërki démb deux cent soixante dix appartement yoo xam ne xale yi fa am appartement treize ans lañ am li may wax du waxuma ci télévision lu wér laa lu ma lay kenn du ko dindi deux cent soixante ñoo xam ne xale yi treize quinze ans treize kan moo leen protégé buñ demee bay jaay ay protect ci biir ay rajo di ko publicité nguur gi démb nee nañ bërki démb nee nañ am nañ fa benn produit bu ñu jaay léegi ci biir lycée yi niñ ko tuddee sax du ko wax ay xale yu jàll ñu leen jaay loolu pour ñu mën a jëflante seen di biir ngir mën a am kattan ci xale bu demagul fen sont mal protégé sénégalais yi lu Sénégal est mal protégé waaw sur le plan ci médias yi yëpp waaw lu ne la ñuy génne noonu la ñuy defe kan mooy protéger nit ñi kan moo leen di protéger kan mooy protéger Sénégal le Sénégal e le Sénégal est mal protégé les Sénégalais et le Sénégal est mal protégé loolu nag moo jaaruwul wax naa leen ko fii léegi anam yëpp boo ci dem rek géej gi boo ci demee nappkat ya jur gi c'est mal protégé sàcc suba sàcc ngoon Sénégalais sont mal protégés agressé tuba agressé ngoon tali bi c'est mal protégé kenn saytuwul dara lépp lépp lépp lépp li ma wax naa ko lim fii ba suba damay def émission ma tënk ko moo tax waaye ngi yëpp c'est mal protégé waaw sunu alal ji nga xam ni c'est mal protégé gis na benn journal bu ko du quinzaine de la farce liñ solo ci ay yére yu weex def quinzaine de la femme nga xam ni fàtte woon nañ ko bu yàgg mënoon naa jëm ci ñeneen ñoo xam ne xaj na fa ci hôpital lan mooy quinzaine de la femme yoo xam ni dara xaalis bi fi ñu koy dugal yenn xaalis yi fi ñu koy dugal am na feneen fu mu xaj l'argent est mal les entreprises sénégalaises sont mal protégées par rapport ñi nga xam ne ñooy entreprises étrangères yi ay supermarché yu bees ñëw nañu envahi réew mi te mën nañoo fabrique wut ay super comme Sonadis bu njëkk ba wut ci ay emploi nationales yi amoon prix yi ñu fixé ko nit ñi di jënd foofu emploi am ba noppi nit ñi di jënd ci normal li ñu lekk c'est mal protégé bala nga ko xam nga dem ci marché yi léeg-léeg boo rombee marché buñ fa buñ leen fii li nga ko duggee ngay bëgg a ceeb bi moom waxaale wu ma ko am na koo xam ne importateur ceeb la day indi ceeb ci réew mi nee na ku mu neex nga nu mu neex nga dugalee ko ceeb Sénégal frontière bi li ma ci wax léegi ba demoon Gambie am na ñoo xam ne ñun frontière li war a def mooy ñi gën a dàqale ci Sénégal ñi dëkk ci frontière bi war nañu am hôpital am police am lépp ba ñee ñu sosol du leen ñee waaye bu fekkee ne dëkk bi nga xam moo la ëpp lépp école moo la gën a baax école am poste de santé soo jaaxlee fa ngay daw dugg ngay yëg ni sa sa laa bàyyi on est loin d'être sur la voie sori nañ lool yoon wi noo ngi nax suñu bopp rek parce que télévision dafa boo génnee télévision ak maquette yeeg yooyu yëpp ñu génne la fii inauguré fi non non waaw foofu loolu laa doon wax leneen li xam moom laa koy tënkee nag ci jeexal ko mooy euh, Sénégal ni ñuy xayma ci comme dama doon wax ci wàllu politique Sénégal ni ñuy xayma ni ñuy fale nit foofu laa koy jeexale no mooy lan mooy am na ñoo xam ni bu ñuy fal ñu naan ah ñii defal nañ ñu bourse familiale dañuy woteel diw sàngam indi nañ fi centre Abdou Diouf dañuy def wote sàngam indi nañ fi maladie couverture maladie universelle nga xam ni danañ lim yooyu yëpp danañ def lii danañ def lii danañ def lii titre foncier nangam lu nañu wax ko am na ñoo xam nañ ñoom duñu xaymaa noonu am réew boo jàngee te xool doon defal nañ sama karti bi rek damay déedéet da ngay xool ba xam mesuré nattale ba xam mbir yi tolloo am déet réew mi niñ ko ndax liñ la defal lépp liñ la xañ toll na contrat yi ñu signé bu ñu defaree Sénégal ba fu nañu def fu dara am ñu gis ko waaw nañ xool ba xam contrat yi ñu signé ndax jar na ko wala jaru ko APE yi ñu jar na ko wala jaru ko am na ñoo xam ne fi ñu toll ñu li ñuy def ay tali ki ay ay forage déedéet ñi ngi xool keroog ca Charles Hebdo ba la ñuy xool ndax Seydina naa alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy ngeen ji mbindeef quatre-vingt-quinze pour cent di ko noyee di dem Madina ak ñëw bëgg yonent bi lool yemaluñ ko dara bu ñu jëlee suñu xaalis jël suñu avion départ Touba départ Touba laa wax won sëñ Touba ginnaaw xaadimu rasul dem ca fa ñuy ŋàññee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci sunu xaalis am na ñoo xam foofu la ñuy wotee am na ñoo xam nag ci bourse familiale la ñuy wotee am na ñoo xam ci leen la ñuy wotee waaye am na ñoo xam ñu ngi woote ci Jeune Afrique bu ñu caricature sëñ Touba ñu war ko supprimer waratul dugg ci réew mi ñu bàyyi ko muy dugg ba noppi jël deux cent soixante millions jox ko di ko neexale Jeune Afrique ci publicité ci sang bu bi ginnaaw buñ ñu am na foofu la ñuy wotee lii ne daal yëpp ci catastrophe ndax ñun Charles Charles Hebdo teguñu ko sax ndax marche bañ demoon nun ci sunu tur ak ci sunu xaalis li nañu nañu xool bu baax waaw man faruma kenn yàlla yonent ti sëñ tuwa mais nit ñi dafa am ñoo xam ne dañ naan gëm nañ yonent bi des na am na ñoo xam ne keroog boobu lañ parewoon waaw sunu avion sunu xaalis ñu dem ci marche boo xam dañ fay ŋàññi yonent bi sallallahu alayhi ak i pancarte ñu ni fan lañ jóge ñu ne Tuubaa la jóge keroog bañ tegee autoroute à péage ba directement dem Paris jóge ci Sëñ Tuubaa dem fu ñuy ŋaañ yonent bi am na ñoo xam ne ci cadre ñooñ foofu la bu ñuy wote foofu la ñuy wote seen wot am na ñoo xam nag ñeneen li ma la ko wax lay waaw defal nañ ma forage bi am na ñoo xam ne ay casque rek ba leen ko joxee ñu wotal la ñoo ñu mooy ñi nga xam ni xamuñu luy àdduna waaw ñenn ñi di la machine bu wol te loolu yëpp yow yaa moom sa xaalis la machine wol bi yaa moom sa xaalis la fii lañ ko jëlee ci xaalis bi de sunu xaalis lañ ko jox la ko forage bi yow noonu tali bi noonu courant bi noonu amul kenn ku ko mën a weddi du salaire kenn suñu salaire la suñ suñ ñëpp suñu impôt la moom lañ denc fii jël tabax ci tali yi tabax ci dispensaire yi joxe ci machine yi jënd ci casque yi yëpp waaw moo tax léeg-léeg ma gis ñu ni crédit crédit mutuel du Sénégal euh, administrateur provisoire ñaari administrateur provisoire ci crédit mutuel Sénégal crédit mutuel Sénégal moom xam naa ne bis bu ñu demee ba ca kanam bis bu xaw a doy lu tax mënuñoo jël kenn teg ko fa loolu nag li may wax def noonu man ci xam-xam laa koy teg rek waaw du ma ko teg mukk ci dégg naa ak waxantu déedéet faruma kenn Sénégal rek sëñ Tuubaa kon mbokk yi nañ bàyyi xel ci loolu baax a baax li ma la wax ni mal protégé mooy publicité yi ñu def télévision yi rek xoolal léegi am na ci am na ñoo xam ne opérateur yoo xam ne xale yi la ñuy publicité ñaari xale bu góor bu jigéen wane leen ci télévision maanaam ñoom luy sexe rek nu ñu boolee xale yi rek ci la ñuy defee maquette yi ci la ñuy defee affiche yëpp xale yi ci mbedd yëpp boo génnee ñaari xale waaw toujours loolu la ñuy exploité xale yi ci seen diggante ñoom ñaar pour bu ñuy publicité seen i seen yëf loolu yëpp kan moo leen protégé benn publicité gis naa ko boo xam ni cimenterie Dangote loolu bu fekkoon ni CNRA mën naa bàyyi xel di saytu dana xam ni Dangote nekk na fekk yeneen cimenterie amoo droit taxaw boo jàngee jël mool daal di toj ni mool bi toj na ana ko defar lii booba yaa ngi xas cimenterie bi jàmbur concurrence bu sen ke déedéet loolu wur wurte jàll ci télévision yow koy taggal sab ciment taggal nu mu mel waaye nag bul wane ni ciment bee ci def ku ci defu mungul mu yàqu loolu yëpp ñu yoon waaw danoo sore ku aw ci yoon di dox waaw mais nag comme nit ñi ci bari ñu ci bari jànguñu am na ñoo xamante bi li ci ëppit mooy takk marché waxoon yuuxu nangam nangam mais kan la ñuy dem ba nga xam ne dinañ wël di ko nag lu mu soxlaati faj ko Sénégal gi réew mi yàlla da ko may lu mayul kenn nañ góorgóorlu te xool fi ñu teg suñu tànk lu leer nañ laa la wax amul lenn lu ci nit mën a dindi dama ne am na ñoo xam ne cadre bi ñuy wotee bukk la du tali du forage du à mille du du du yooyu am loo xam ne def nañ ko ñu am ñoo tey jii les citoyens sëriñ si ay citoyens ordinaire lañ boobu lañ wote bu yàgg am na ñoo xam la ñu wotee li may wax nag du lu ma fent li dama ko fi fekk mu nekk di ay fait waxuma ay comment ay fee laa wax waaw kon nañ xool li ñu am baax nu téye ko te jàpp ko sénégalais yi ubbi nañ seen bu baax baax a baax nit ñi bu leen defee ni rek nit ñi kërëb kërëb bi coow lépp ubbi nañ seen bët xam nañ fi ñu teg seen bët réew mii Serigne Touba liggéey na fi loo xamante ni bii góorgóorlu tuuti buñ ko defee képp ku fi nekk président sax waroon ngay fay di fay Serigne bi ndax bari na lu ñuy puukare ak di fekk ndimbalul Serigne bi la barkeb Serigne la maa amul ci benn went seere yàlla suñu borom waaw jërëjëf kon mbokk yi noo ngi leen di gërëm di leen sant incha allah loolu moo doon conclusion bi ak jeexal gi nga xam ne waroon nañ koo jeexal ci lu jëm ci wàllu mbëri yi nga xam ne ñoo dëkk yoonu murit te ñu war leen a daan kon Serigne Assane mi ñu àndaloon ci wàllu xarala gi moom moo doon réalisateur bi ak Serigne Madieng si Khary Dieng mi nga xam moo yoroon wàllu caméra bi ak Serigne Lamine Ndiaye bi nekkoon son ngi leen di gërëm di leen sant li kii wax léegi wa tawfiq illa maa waa udul islah lu yëwan laa bëgg lu yiw laa bëgg lu baax laa bëgg yéene ko Sénégal gépp bokki taalu bi yëpp waaye amul lu ma benn intérêt di may wax lan lu ma ci jëmmi seen Tuubaa tax may wax kon nag nun góorgóorlu nun ñëpp te yi yéene xam ni li nuy jariñ mooy nu jaamu yàlla bëggante nekk benn te lii nga xam ni réew mi li ma wax ni c'est mal protége ñu xam ne c'est mal protégé sénégalais ak Sénégal c'est mal protégé te nit ñaa ngi ubbi seen bët di xool yi yëpp amul solo nañu respecté te ñaana Cheikh Sidi Mokhtar mu yàgg fi ñii foyee nag yoon wi ni ko waa ji waxee léegi loolu moom day dekk ku ko ma sonn ni Baye Fall diw la taxawaatal ci rajo bi ne maa ngi jégalu di tuubal Serigne Touba du ma Baye Fallu kenn maam Cheikh Fall mooy Baye Fallu Serigne waa kër sëñ diw nag war naa amu Baye Fall ndax loolu ci yoon wi la nekk te lépp ci lislaam jëm waaye yëfi caaxaan yi di ci dugal na loolu moom du am maam Cheikh Fall ëpp na loolu loolu sax yabaate gi day ëpp ba ëpp jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh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 alhamdulilah alkarim silmilan ala sixaali bi furudin wa sunan sakartuhu lianu xad saxani liwatani bi